Jene getelu sen sen Rumi Venkat TV.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 Ibrahima Ndoye mi nekk nag nouveau procureur de la république moom ci jëme boppam rek daal dinañu koy installé ci fonction yeesam yi nag lii di cérémonie de passation service ak ki nga xamante ni rek moom la fi wuutu di Abdou Karim Diop daal di nañ koy amal rek ndikki démb ci talaata ji ba tey ci wàllum xibaar bu ñu jógee foofu dañuy àddu rek wax ci band de filao ya nekk ca diwaan bu ndakaaru nag jot nañ ci amal ay recours yoo xamante ne rek nguur gi ci jëme boppam rek am na ab décret boo xamante ne rek dafa ñeel déclassification ca diwaan bu Géejawaay nga xamante ne rek dañ ko daal di bind nag ci rôle bu audience président de la république bu cour suprême niki alxames nag la koy fas yéene xool yemoo ko ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru août ci atum 2024 bu 10 heures jotee mu nekk nag mbir moo xamante rek action pour la justice environnementale daal dina koy xamle ba tey rek ci wàllum xibaar fi nga xamante rek ministre bi daal koy jël nee nañ nag teewul benn yoon wala muy dakkal sax seen procédure bi waaye nag jeexagul ci mbir mu nu mel nag daal dinañuy door ginnaaw conseil bu bés CBAO bi nga xamante ne rek dafa daal di sukkandiku ci administrative yi ngir dakkal bépp dogal boo xamante ne dafa tukkee ci jawrin bu ñu dénk nag wàllum mi ak emploi ak li nga xamante ne rek moom mooy relation jarale ko nag ci institut infirmier yi nga xamante ne rek ci dogal bi 11 mars 2024 ak inspecteur régional bu travail ak bu sécurité sociale bu Dakar nga xamante ne rek defa daal di joxe autorisation ci licenciement yi nga xamante ne rek def nañ ko kii di Mansour Diallo Doudou Tunkara ak Aline Seck ñoom ñëpp ñu nekkoon délégué personnel bu Cour suprême daal nañuy àddu nag ci dakkal bi nga xamante ne rek dakkal nañ ko ñu jëfee boobu lee mbir mu nekk nag mbir moo xamante ne rek moom moo tukkee ci yooyu lee décision waaye nag wuute lool ak li nga xamante ne rek jamono ji moom la wax ndax parti yi ñoom ci seen jëmmi bopp rek ba nëga ni am nañu possibilité daal di xam nag ab cour wala sax daal di argumenter ay preuve laata rek ñuy jël bépp pour dogal boo xamante ne rek dafay daal di tukkee nag ci cour suprême ñun fàttali leen rek euh, boobu lee mbir nag jëwriñ bu ñu denk wàllum xëy mi maanaam wàllum emploi wàllum travail de l'emploi et des relations avec les instituts moom ci jëmee boppam rek amul benn yoon rek euh, di jéeme nag jugé ci kanamu euh, juge du ñàkk dinañ ci ñëwaat ci yeneen i jotaayu xabaar jërë ngeen jëf ci ànd bi bu leen fàtte abonné ba cloche de notification ngir mën a am yeneen xibaar